on waiting. sa rakk sa xarit mm. combat boobu ñu gis si polémique yi tamit bari na ah, ama mm. gis nañu ñu ne su paree foofu day bëreeg Modou Lo mais mm. koy waajee non ñu ngi koy waaj bu baax a baax a baax waaw maa ngi koy ñëpp a ngi koy jàppale surtout diaspora bi comprendre nga waaw combat bi yàgg na mm-hmm. mettina trop ci promoteur bi Ibrahima Diop ñu koy masaw bu baax a baax a baax combat boobu mooy suñu combat ñun ñëpp parce que ñaari weer bu ñu tabaskee ba pare rek ñu ngi si combat bi ko Ama Baldé saa yu pare entraînement sama néeg lay nekk xam nga lekk li fa nekkoon yëpp dem yoonam ah, <laughs> waaw dóor li fa nekkoon lépp dóor lekk bi nekk ci kër gi yëpp jóge foofu dem na technopole ba ci alwalit waaw moom yàlla dafa def nag yàlla da ko booleek Cheikh Fall sama turandoo doom sama doomu maam la baat bi su jógee entraînement fa lay nekk combat boobu <laughs> combat bu yéeme ngi noonu waaw combat bu yéeme ah. mhm. yow matul juróomi nit waa Fass duñu dugg si stade bi de. ngeen lu leer laa lay wax billaahi wal kitaabi. billaahi ma koy wax nag diaspora yi. Ah. waa diaspora. Ama Balde ci yéen la bokk na ngeen ko jàppale. na ngeen ko jàppale bu baax a baax bu desee Ama Balde rek doo dégg mu siy ñaan kenn man xam naa ko am na kersa di ñëw di ñaan autorité wala di fëgg bureau kenn Ama Balde fëggul benn bureau. léegi nag ñun ñoo fi nekk ñun ñoo koy waxal képp ku nekk di ma seetaan nekk si diaspora bi nekk ci Europe bi noo ma doon taxawoo nga gën koo taxawoo Ama Baldé parce que métti na ci moom trop toog quatre ans bëriwul affaire bi métti na ci moom trop te làmb dafa metti mhm. fi mu toll nii combat bi jege si na képp ku si bëgg jàppale Ama Baldé man nag ma contacter bu nekkee dërëm sax Ama Baldé dina ko jot parce que xam naa ne man tàngal mantam soxlawuma ko mais dañ ñu bari dañ ne combat bi Ama ba woon. Hmm. dañ cee gis différence ñu ne Ama entraînement bi dafa des dafa xaw a volumé te Gris Bordeaux dégg nañ ci côté communication waa face et sans bi seen mobilisation te Ama bu paree ci Gris Bordeaux dañ ci Modou Lo ñëpp ne euh, Ama Baldé pour mu daan Modou il faut mu mu wone ci Gris Bordeaux que ne moom Ama ba ñu xamoon ak bi est-ce que jàpp ngeen dina am différence. guddi ñu toll nii mbër bi mbër mbër bi ëpp doole Pikine Ama Baldé Ama Baldé. billaahi wal kitaabi guddi yi ñu toll nii. Ah. waaw. dama tax wax la. dama koo xam dama ko gis muy entraîner su entraîner ba pare ma ñëw yi mu doon def da ko doublé. kon kooku du kooku du caaxaanee bés de. ko may dara du ñu benn sax. ok dégg nga Gris Bordeaux bi muy bëreeg Pathé Baldé Ama Baldé mu ngi raam. billaahi xale bu ndaw la. bëre xale la ak mag. lu dëgg. Mhm. te Ama Baldé du caaxaane entraînement may ñu zil may ko jàmm. xam nga mhm. kuy dajale day dajale tanooru Pikine yëpp ànd ak ñoom beru ci ruq ke moom damay toog trois jours duma ko gis mu nekk ci diinu tuwaawoon pëli xam nga Malo Seras di ko coaché ñoom ma tomboo waaw ah. Pikine ñëpp combat bu mag bii lañ fiy xaar moo fi nekk mooy am Ama Baldé Gris Bordeaux moom la ñuy xaar ñu lépp ci lañ koy def d'accord waaw man daal li may wax daal nañ ko jàppale rek ah. Pikine waa yi nañ ko jàppale waa diaspora yi nañ ko jàppale ok hmm. euh, dañuy dégg gars yi ne Ama Baldé su daanul Gris Bordeaux hmm. pour mu daan Modou Lo day nekk pression ci moom est-ce que tey Ama Baldé le fait que bu bëyee juillet hmm. ñu ngi wax mois de euh, novembre Mm. Ama Balde war a sëgg ak Modou Lo mm. est-ce que loolu préparation yooyu noonu du metti ci Ama te Modou Lo gis nañ instant bi fu mu tollaat dañ doon wax ni lamb Modou Lo ibaadu la ñu gis mu ñëwaat ci beneen système mm. est-ce que loolu tamit yéen a ciy bàyyi xel. non ibaadu bi moom dañ na parce que gis naa ko ci waal yi muy pàkkar ñi foofu <laughs> Ibadou. Ibadou bu moom. dindi na ko tegee na ko nele. léegi wax dëgg yàlla gis naa ko mu wat sikkim beeg yooyu noonu. nekk ci waal di dem dem yu neex. Ah. mais est-ce loolu tamit euh, du doon du leen ci am pression. barke Rasulullah combat Ama Baldé laa gën a am confiance bi Gris Bordeaux bi barke ndax ah. ñun dañoo yar ku ragalul dañ dañ koo xam. ok billaahi wal ku jàpp ni Ama Baldé ragal ne la lu toll nii rek yaa ngi nax sa bopp. dama koo xam. d'accord voilà dama koo xam lépp lu ñu sonnaloon fii Pikine Ama fajal nañu ko takkusaan yi gën a garaaw Ama Baldé da koo gañe fii Pikine. muy combat am ak Tapha Tine. Uh-huh. daan ko. yombul de uh-huh. mais Ama Baldé da koo daan à la manière. Uh-huh. bi muy bi ñuy indi foofu avance bi Malick Niang kenn nanguwul bi arbitre bi avant muy soufflé képp ku jege woon Ama Baldé génn nga estade bi di jooy. gis nga nu mu mujjee man tiitalu ma ko si combat yu danger yooyu Ama Balde. man xam nga lan laay tiit ci Ama Balde Ama Balde moo man. kon moo Gris moo a yomb. dama ne la Ama Balde moo man boobu laay gën a tiit. Ah, yi mu daan daanu yëpp Ama Balde moo mën laa daan dégg. d'accord mais kii moo mën Ama Balde man damaa bëgg chaque jour rek ñuy jox kële favori. ok mais le fait que trois mois yi du am différence bëre bëre Gris Bordeaux bëre Modou Lo. day compétir. day compétir. su suba loolu moo ñu arrangé parce que Ama mu ngi entraîné Ama Baldé da doon entraîné bi muy entraîné combat bi yàqu Modou Lo gaañu. Mhm. mu continuer entraînement yi noppaliku moom it mu gaañu. Mhm. bi mu gaañoo léegi amul trois toogul trois mois. Mhm. wër commencé war na entraînement yi dégg nga ni ma ko gisee nii nii laa xamee Ama bale d'accord nii bu ma ko gisee sama xel day dal. waaw. fi may jeexalee ak yow Tapha ak Sa Thiès noo gisee combat boobu. dafa taxaw. noo instant bi moom la gars yi réclamé. Uh-huh. dégg nañ démb manageru Sa Thiès ne ci Tafatine la des côté camp boobu la des mais nan gisee combat Tafatine ak Sa Thiès. non combat bu neex lay doon Tafatine jëlal booy bi. ah combat la de combat bu jaadu la. combat boobu bu jaadu non non non du risque de. du risque ci Sa Thiès de. Uh-huh. waaye ta soo ragalee doo ko daan de <laughs> boo ragalee rek doo ko daan wala ngay jéem a dara doo ko daan de. Uh-huh. mbër bu naqaree daan la guddi ñu toll nii. ok. Mhm. Euh, borom fullaak fayda moo koy daan. mais ngay ñëw di ko xaar ak yooyu doo ko daan de. mayetul xale benn mayetul benn xale parce que ama da ko yee. Mhm. waaw daanaan la de te teewul bëri de. Mhm. dañ ko seetaan Assane Diouf. mbër yi dàq bëree fii ci la bokk. soo xoolee combat am Yékini Junior da ngay xam ni kii fii stade Amadou Barry da ngay xam ni Yékini euh, Tapha dafa mun a bëri de. seetaan nga ko. contre contre si Junior ah ni mu bëree noonu raar na poirul di bëree noonu. waaw te dafa mun a bëree. Mhm. waaw noo gisee taxawaayu mbëri pour l'instant ndax gis mm. nañu mbëri <laughs> polémique yi bari na. waaw dem nañ ba benn instant sax gars yi dañ ne dañuy boycotter làmb. Mm. parce que mbëri ni ñuy ni ñuy taxawee baaxul gis nga léegi mm. mbëri yëpp dañuy clash. ñëpp boo dugalee sax tey benn vidéo ñu ne ñuy jaratu ñoo seetaan mais taxawaayu mbëri en général. nan gi leen gisee instant bi. waaw loolu la xam nga ñoom tamit ama maa ngi koy seetaan maa ngi seetaan tamit samay rakk yi mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ngi leen di sànni xeer mbëri tamit mais man man Pape Sarr laa wax mm-hmm. man moo demoon team Macky Sall mm-hmm. jàkkaarloog moom xam nga président ku mu woo nga dem man bu ma jàkkaarloo nag Macky Sall naa ne ko géejawaay géejawaay am na cent jeunes yi fa nekk ak Pikine ak caaro Thiaroye arène nationale bi ñu jéem leen ñu jéem leen a embauché dégg nga ñu jéem leen a embauché xam nga mais man li ma seetaan affaire bi amul lenn loo xamante ne rek lu ñu wax président la. loo xamante ne tey lii avancement wu làmb la wala avancement wu jeunesse la. Mhm. man de bu ma jàkkaarloo nag Macky Sall Macky Sall gis naa ko ñetti yoon ñëw na mhm. suñu kër ñetti yoon <laughs> waaw man moom gis naa Macky Sall ba tax mais man moom su ma ko gisoon mhm. sama yëfu bopp du ma fa yóbbu waaw sama yëfu bopp du ma fa yóbbu naa fa demek yëfu askan wi ne kat arène bi am naa gis naa fa buntu yo parce que loolu laa wax Thierno Ndom Thierno ba toog nañu muy nit ku baax moom it keroog bi gaa yi doon taal ak yooyu noonu fekk na foofu xam nga xale yi toog ci jardin bi mu jox ma un million ma seddale ko xale yi ba mu jeex moom it xam nga boobu ñun terewuñu ku taal xam nga ñun ku taal suñu yoon nekku si mais dajji alalu jaambur ñun loolu lañ doon xeex suñu koñ magasin jaambur daal kenn du ko laal waaw manifester ku la neex nga manifester man du ma tere kenn mu manifester. Hmm. mais di jël di dajji alalu jaamur du sàcc alalu jaamur ñun loolu ñu dul nangu suñu koñ. bi mu gisee nag ñun ñu def ci taxawaay boobu parce que taal nañ fa pono comme ni ñu taalee pono fépp. Hmm. Hmm. mënuñu si dara duñ ko tere kenn mais tamit am nañu droit taxaw ne magasin jaamur yi kenn du ko laal. waaw kenn du ko laal parce que suñu fi may toog waa Sonko ngi fa waa Macky saal la ngi fa. xam nga bu ñu dooree ñun ñooy faji yi bu ñu reyee ñun ñooy dem suuli ji ah. moom tamit ma koy wax mbëri daal nañu xoolaat bu baax seen taxawaay parce que lu lépp lu ñu mel ah. Ah, seen supporters yi lañ ko mel comprendre ngis que beneen yoon bu ñu dematee xëy na erreur de communication am na ci loolu bu ñu dematee ci Macky Sall nañu nañu nañu nañ fa demal askan wi demal fa tey ñi nga xamante ne ñoo nekk seen ginnaaw jooytul leen li nga xamante ne tey mooy sooxe ci làmb uh-huh. ñu wax ko foofu uh-huh. comprendre nga uh-huh. tamit mënu ma ci sori mënu ñëw wax Eumeu seen nii wala Ama Baldé wala Gris Bordeaux wala Modou Lô wala Balla mënu ma leen mënu ma leen diingat ci dara mais nañu xoolaat seen toogaay voilà nañu xoolaat tamit xam nga bu ñu dematee nañu xool lii moo neex population bi ñoom ñu wax ko président ok comprendre nga comme semence bi bëri na xam nga arène nationale bi tey am na ñu bëri ñu fa war a mën a liggéey muy waa Géejawaay muy waa Parcelles. Mhm. ñoom comme ci wàllu làmb lañ nekk. tey soo xoolee scooters yi gaare fii ah événement bu mag faat ma Dia. Mhm. ay millions moo fiy génn. Mhm. mun nga jël benn cent personnes yu nekk Géejawaay jël ko Parcelles cinquante cinq cent jël Pikine cent muy trois cent personnes événement yu mag yi. ñu solal leen gilet comprendre nga gis que ñii ñu yëgal leen ci kaw tribune yi. di di di surveiller ñiy damm saisi loolu yëpp. ah day tax semence bi wàññeeku. dëgg mm-hmm. ñii ñu jël leen ñuy nettoyer stade bi ñii ñu jël leen ñuy garder oto yi. Mm-hmm. ku oto bu gaare joxe mille francs scooter bu gaare joxe 500 solo leen ay gilet. Mm-hmm. tey boo si jëlee 100 personnes. ah arène euh, géejawaay jël 100 personnes parcelle jël Pikine 100 personnes wala yaraax ak yooyu noonu dajale ay jeunes. teg leen dinañu wax dinañu xam ne lii làmb mu ngi nit ñaa ciy yi comprendre mais dara. man daal man su ma jàkkaaroon ak Macky Sall mhm. man daal benn loo xamante ne mu ngi arène nationale nga xam ne su ñu gox la nekk mhm. man ci loolu laay wax ne kat dama am ay xale yoo xamante ne ñu ngi fii defuñu dara mhm. xam nga pour nga waxal ma ko bira seen mu jëlal ma xale yi ñuy gànn ci scooters yi wala télé yi wala di nettoyer di nettoyer stade am na solo euh, Ada Fass sa rakk sa xarit ñu gis ci fan yi problème yu am waroon na bëri ak ki nga xamante ne moom mooy Zoss ñu tëj na gisee tey tax làmb Ada nan ko gisee ak Ada mbër nan nga ko gisee taxawaayam. waaw mu mu mu defaraat toogaayam rek man ak moom ñun même jour la ñu arrêté ndoo. waaw man ak Ada moom dañ koo téye dañ ko téye ci ngoon gi man ñu téye ma ci suba si ma koy ñaanal fee mu nekk waaw yàlla na ko fa yàlla jële mm-hmm. waaw maa ngi koy ñaanal bu génnee tamit mu gën a defaruwaat. xam nga dem delluwaat ci ay loxo kilifaam. di déglu tamit di yé di moytu tamit. di moytu bu baax a baax a baax a baax. waaw parce que tey yoon fee mu nekk neen képp kuñ fa teg rek danga am loo def. waaw da nga nay moytu bu baax a baax xale la bu yaru xale bu baax la. waaw parce que ay mbokkam ñu ngi fii Pikine mhm. waaw muy suma booy ñuy déggante ma ko si doon conseil yu bëri maa ngi koy ñaanal daal mhm. xam nga na ko ñëpp ñaanal tamit di ñaan daal nañu wàññi daan bi même bu nekkee dañ koy may liberté provisoire ñu may ko ko xam nga di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm parce que loolu lii li ko dal ni ñu ñëpp la metti mhm. képp ku bokkul ci làmb sax lii metti na la xam nga xale la xam nga avenir mu ngi ci kanamam mun na lekk lu bëri ci làmb muy ndaanaan mooy masawu tamit promoteur bi ko tëgg. Hmm. moom Zos maa ngi koy masawu bu baax di ko ñaanal yàlla na ko fa yàlla jëlee. am na solo. Hmm. amaan mbégte contentement pour yéen doon suivre sur Kewel Info ñu dalaloon ki nga xamante ni moom mooy Pape Sarr. Hmm. mu nekk koo xamante ni mën nañoo wax ni lépp Pikine du ma ne Pikine rek mais kon li may wax rek euh, kenn ku nekk am na relation ak moom. kon li mu wax rek nit moom da ngay toll benn moment boo xamante ni yaa jël say décision bopp nit ki da dem benn instant xam ne kat la ma doon def. am na lan moo tax moo ko doon def lu ñu naan toll ci def ko dépensé ko aayul. Mm-hmm. di ko ñaan ñaanalaat yàlla yàlla bàyyi ko suñu kanam yàlla mm-hmm. may ko gudd fan a wér yàlla aar ko yàlla sàmm ko ndax nit ku baax la nit koo xamante ne mm-hmm. ñëpp la yemale ñëpp lay jox conseil di la wax rek lan mooy sa kàddu gu mujj mais Alain maa ngi koy nuyu bu baax a baax. waarante DKR moog Jumbo ñoom dañoo da ngeen a a xeewi nag. par non ah. bu baax Alain moom it suma xarit la maa ngi koy nuyu bu baax doom ji da doon def communion moom it maa ngi koy gërëm bu baax Alain ak soxnaam Jimbo ah. Jogay moom it maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm bu baax Kéba Kanté mm-hmm. moom it ku may taxaw l'infatigable waaw Kéba Kanté maa ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal moog laay laay bu Kéba Kanté laay mooy borom koppari mooy joxe koppari waaw mooy joxe koppari waaw maa ngi koy gërëm bu baax di nuyu tamit xam nga képp ku nekk koo xamante ne rek employé nga TFM. Mhm. di ko jiital nuyoo bi Birane Ndour suma xarit. Mhm. di gërëm Nouroullah Jamil mhm. Nouroullah moom it suma nit la maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm nag am nga euh, suma xarit Iliman Lam. Iliman Lam waaw Iliman Lam. borom Sekecha waaw borom Sekecha Iliman Lam ku may taxawu la. ku may jàppalu la sama mbokk la. waaw sama mbokk Haalpulaar la xam nga mi salminaama mi salminiima mm. an konjidda yo yo allah hokke hokke <laughs> hokke milliard ko ko bëri milliard yo allah hokke an an iliman waaw maa lay ñaanal bu baax a baax a baax parce que daf ma daf maa jàppale mhm. taxawuma bu baax a baax a baax iliman laam mhm. moom it maa ngi koy gërëm di gërëm Fallou Ndiaye mhm. ak promoteur yëpp Fallou njaay tamit maçon spécial waaw maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla defal ko jàmm di nuyu waa kër lobaat yi ñoom euh, Cheikh Lobaat Awdi Lobaat Mama Lobaat ñu koy wax xalif xam nga Abou Sall maa ngi koy nuyu bu baax ak képp doomu Sénégal buy buy yeewoo 116 New York jël nuyoo bi yëpp di ko teg ci loxo Mbaye. Mhm. xam nga mbay Diop. waa 116 yëpp ñu nekk New York mbay bu Lyon maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax Mbaye maa ngi koy gërëm Fatma lii génneel ma ko. ñii Mbaye waaw waaw waaw Mbaye lii génneel ma ko. ñii samay nit lañu di nuyu Ibou di nuyu Laay Ndiaye moom mu ngi États-Unis maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Paa Idi. moom it koy nuyu bu baax a baax a baax a baax ñu nuyu Saatuba moom it uh-huh. suma xarit la Sëriñ Masil la maa ngi koy nuyu bu baax a baax Jamaïcain suma xarit borom baa ma njoon bébé jën di nuyu xam nga di nuyu di nuyu waa Pikine suma doom Pokola. maa ngi koy mm. nuyu bu baax di nuyu tamit mbëru Pikine yëpp képp ku fa am combat rek yàlla na la suñu borom defal ndam. di nuyu Cheikh suma doom. maa ngi koy. Cheikh maa ngi koy nuyu moom muslim ki mu nekkal foofu muslim suma mag. ah Cheikh <laughs> waaw maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di nuyu yaayam Ndeye mm. Marème. Mm. maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di nuyu waa Pikine yëpp wasalaam. kontaan